ndax xool ko ba mu neexu ni ku dëgg-dëgg man mooy yow dëgg-dëgg jàpp ci man mooy dëgg-dëgg jàpp ci yow loolu du ko koo yëgul koo la mu doon xamoo la mu doon dok ko battalee Sonaida bu màggal gi teroo amul tul yitte fi mu li ma lay leeral jëfi màggal gi man na laataa jëfi tabaski gi taxaw màggal gi féete na côté muy doog a wax waxi si boo waxee mun la màggal gi màggalu seey la màggalu ren gi màggalu seey ku tàbbi ci màggal gi seey nga te nag tabaski mi amul ku ko wute kon nag bajaan mu ni nga ñaanal ko sunu borom guddal fanam waaye nee na mu delluwaat di la ñaanal sunu borom guddal soo fan nga ñaanal njaboot gii di teranga ji ndax moom njaboot gee koy àndi chaque àjjuma ñu togg ci Medina Salaam bernde yu yéeme yéen doo wër fi ndool ci suba lañ di wër ci suba mu ñëw alaa jebel fu mu mën day dem ci jàmbaar ji waaye nga am ngor lool bajaan si yal na yàlla guddal soo fan sagub islam nga sagub diine ji nga sagub réew mi ki ngay ko kennal am ndam ñu ngi leen di nuyu yéen ñi fi toog ñëpp di leen ndokkeel ci tabaski gi di leen baalu àq ci tabaski gi di ñaan sunu borom boole ñu jéggal ñun ñëpp naa li ma wax ci suba ñu du sàll ci rajo Sud FM parce que du may dem suba gi damay téléphoner rek def émission ma leen nag bésu baalawante àq la waaye nag na nit ñi bàyyi xel mi bu fekkee ne jabel wax na ma loo xam ne bu ma ko xamoon duma ko baal su ma jéggaloo yàlla du ko ko baal doonte ne naa ko baal naa la waaye jubluwuma ci lim ma waxti bu ma ko xamee duma ko baal waaye li nga xam ne su ma ko xamee baal ko ko loola la yàlla di effacé li nga xam ne nag su ma ko xamee du ma ko ko jékkal yàlla du ko effacé te baalu àq erreur lay doon du tayeef erreur dangay ngay jàll soxna ay da toog nga fakkastalu ci tànkam kooku njuumte la nga ne ko baal ma ko mu ne la garaawul bokkul ak tiim ni daggal ko saaga ba mu neex la tabaski ñëw ngeen ne ko baal ma Sénégal ñi fi baal bariwul ndax juum ñi fi juum bariwul ñi fi ñi ko ñi ko tayee fi bari kenn du leen jéggal il faut yàlla dagg seen digg ko defee bég nañu lool ci yéen ci laay njëkkee cant gi ndax bu leen amuloon du ngeen ko indi am déet bu du loon lantinoor loo yéene yéene bitel diwlin bu amul lantinoor du ci dem yéenay lantinooram kon dañuy fexe ba naan noor bi noor bu mu damm ndax mu mën a jàllale diwlin gi bi ci des ñu sant ko sant senegal man damay wax ne man senegale laa man senegale laa li ma bëgg sopp ko jël ko loolu man la concerné ci xol bi lay ni loolu man la concerné sama sëriñ lim ma jox ma war ko jëfandikoo maa koy jëriñoo du ko jëriñoo kon duma dem ci mbedd mi def ko mbërum làmb dama koy def royuwaay ak jàngukaay jàng ci moom xam-xamam roy jikkoom yu rafet falaayam la ci des sama ndey am na ko sama baay am na ko muy juddu bi sant wi askan wi soxlawuma ko ci kenn sama bajaan ji moo ma dàqal sant wu mën a am ci àdduna bi te sant aada nit bu tuubee kenn du changé santam barki démb fi ñëw yonent bi amul sant kon aada sant amul solo jom moo am solo sant amul solo itte moo am solo góor ak jigéen a yem ku am itte rek not jamono ku am itte rek not jamono ana xadijatu soxna yonent bi lim ko defal yëpp ci àdduna alaaji bu saaxo dégg naa mu ni léegi-léegi yonent bi toog toogu xadija xadija toog toogaayam ndax lu ñu war a financé xadija financé ko su paree bàyyi yonent bi mu doonaat boroom kër gi doom yi mu jur yëpp ci xaddi la ko amee jigéen a njëkk julli ci lislaam gannaaw muhammad jigéen a njëkk gëm yàlla ci lislaam gannaaw muhammad jigéen a doggali yonent bi jigéen jàppale yonent bi jigéen dafa bari doole te mooy sunu ndey mooy sunu ndey kon tabaarakallaahu su ko yàlla dimbalee boroom këram dem ba ko fi mu gis la mu daan def ba muy dund mu di ko xool nekk yii booba nar na bu fi jógee lii bañ a taxaw doom ju baax day day day def kër baayam continuité mais da koo def rupture continuité farata la mooy kër xaadimu rasuul tey ko fa ne sëñ Muntaxa sët la te buy dem keneen ñëw yàlla na fi yàgg sama xarit la nag buy dem keneen ñëw kër Cheikh Al Hadj Malick continuité la ko fi ne Pape Serigne Mbaye Mansour suy dem keneen ñëw ñoom seen mbir dara du taxaw ak yeneen kër yi mag ñi. moo tax euh, danaay dégg ci grand sériñ benn ma invité ko fii benn gàmmu ñuy waxtaan mu ne benn paa ne euh, bàyyi ku mët moo gën bàyyi lu mat jabeel mu fi bàyyi ay milliards ak oto ba ma fi may doomam ma nekk nit ku wayadi topp musique bois di ba xaalis ba ne pëng bàyyi woon ma ma am jomam te bawu fi dara ma liggéeyal ko fi daraa ko gën te taaw ba yàccaaral musiba la moo tax jom rek am solo muy góor muy jigéen taxawaay rek am solo ana maam jaara bu so benn daf ma mas a laaj ne waaw maam eh, ban siècle la woon ak fu mu dëkk ak ñaata téeméeri at laam ma ko mu mu ngi poroxaan gi nga naan mu falan ma ne ko yow nag contraire poroxaan moo la dal mu ne ma luy loolu ma ne ko da ngaa coroxaan yow mi xamul fi maam jaara ne mu ngi poroxaan gii fanweeri at ak ñett dong la dund maam jaara fanweeri at ak ñett dugg aljana fanweeri at ak ñett ngay am fa lay am yonent Yàlla Isaa li ngay digg coow yépp yëpp catholique yi 33 la dund yàlla dañuy tëgg bañ am 33 ans mu dugal ñu aljana muy dund maam jaara buso ci la jur àdduna muy xaadimu rasul taxawaay rek am solo coow li amul solo jubal rekk jubal tuuba li abdin muridin saadiqin lawumu bi xidmatin ah, aw bi xubbin aw hadiyaati xaadimu rasul nee na dara li nga bëgg ci yàlla ak li ngay wër ci yàlla ak bëgg a dem aljana ak bëgg ngërëmam li abdin tënkul ci li yàlla bëgg rek te nag ña coow uuti yàlla muridin bul uuti kenn ku dul sa borom koo xam ne bu sa bàyyi ne tëll doomam du jóg nuyu ko loo jógee di ko nuyu ku faalewul sa baay yow nga dawal baayam di bëccëgal baayam nekk ci baayam sa baay bu ñëwee du ko gis te nga nekk ak moom doo nit te cër bi nga jox baayam joxu ko sa baay su baayam ñee jox sa baay ñaar loxo yow boo ko nuy suul du la nuy si léegi loo dama lay laaj loo jëndee sa baay wax ma ko ana prix bi lan nga jëndee sa baay laay laaj bu dee aljana jaru ko bu dee alal jaru ko njub rek la Xaadimu Rasul wax ko baax day jub wuuti yàlla coow nag moo tubaab naa ko ba tàyyi màggal gu ne dégg naa ko waaye dégg ko ma màggalu bés ba sëñ tubaa doon dem géej sama maama ko gunge moom lay màggal dégg gum ngeen ko déedéet dama lay laaj rek xam nga xeet wu ne jaaroon na sama maam ñëwoon na sama kër maam julli woon na ci garab gi julli woon na ci bërëb bi def lu ne mën nga koo wax waaye damay màggal bis bi fi xaadimu rasul jóge doon dem ci géej gi sama maam àndoon moom ñu dem dikk loola lay màggal doo ko dégg illaa abadil abidina nañ ko weddi moom kottu moom cundum làq ñaar yu nit dul gis muy rasulillahi ak maulana tabaraka wa eh, nit ñi bàyyi caaxaan loo rek kay dëgg góor ak jigéen a yem ku taxaw yàlla sedd la benn buur rekk am mooy yàlla moo bind ñépp def kii góor def kii jigéen kenn ku ne bi ngay judd li nga war a am mooñaale na ko ñu bëgg la mooñ nañ ko ñu bañ la mooñ nañ ko ngay góor mooñ nañ ko ngay jigéen mooñ nañ ko yàlla pare na ci ñaari yàlla amul benn yàlla am ku taxaw mu sedd la ku taxaw rek mu sedd la waaye ñëw bàyyi sa sant ca xaj ca xaji laa de ñu di ko séddoo ni ñuy def médd ñëw ci santu jabel déedéet yàlla séddul sant séddul askan séddul famille est-ce que xam nga ne Xaadimu Rasuul fi la fekk Mbàkke Mbàkke Balaay sa Mbàkke Balaay sa buri fii la ko fekk waaye buñ ko xamee moo tax ndax itteem bari nañu ñu xam kenn rek volontaire bañ xam famille moo tax ba géwél ba ñëwee di ko tagg ndax bëggul lu am fekk mu toog Sëñ Tuubaa bu daan toog lu weex lay sol nii rek lay def di ming mu dugg si bu naafiliwul mu ngi jàng alxuraan wala muy zikar wala muy jàngale loxo bi nag dërëm du ko laal ñu nekk ay dóor ay mbéj ay kuntaaba ay kajj rek la def moo tax nooy def doo noppalu ba ngay dee jubal boo amee benn dërëm yàlla barkeel ko nga tedd ba ba ngay dee léeg-léeg kilifa yónni la nga wàññi ko ah, dafay am fii laa dëkk te duma duma dof duma xale de xam naa lu bari sëriñ bi yónni la programme nga xaaj enveloppe parce que xam nga ni kanga dem du gis sëriñ bi te sëriñ bi du ko gis kon ku lay boole mais yàlla mi leen bokk yilif mu ngi gis sóoral yàlla te man damay wax ne muy xaalis day ràpp muy xaalis ca du ba la jëm muy xaalis da ngay màgget mbubb nga ci jënd muy lii balaa déwén mu màgget xaalis bi ma ko jëndee woon dama triandé yàlla nga ko gardé ci compte bi. mas naa ko benn góor mu mer day xool ci ceeb yi ñuy indi tuwaan mu ne lu tax joxuñ ko ci ma ne ko papa loolu amul solo xanaa yëgoo ne oto ceeb bi bi ñu oto manqué yee ci topp mu ne ceeb wax nga dëgg di bi oto ceeb bi départ lii lépp fu mu jëm rafet na di waaye buñ ko lekkee ñu ñëpp ko ne booy dem wan lay doon amul too amul tri amul five jàpp bu raxasee loxo bii lay njëkk a raxas doog a raxas bi massa bop bi raxas tànk bi juutal lépp lépp la juutal Omar ibn Farouk mel ni Iran rek ci ñàkk sago fiila fiila fii la fii la ci ñàkk sago del ni ku way yow mag mu tol ni yow mënoo jàpp mag mu toll ni yow mënuloo jàpp soxna si di ko xool ba mu yeggal mu ne ko ay nitu yàlla bu toll ni yow di wër benn garaat di sikkat te mënoo xam fu garaat ba ne loolu ko teree xam yow it ti sa garaata nga ci Égypte soo fa demul doo ci jot ci kuy juutal njàpp di jigéen moo wax Umar ibnul Faaruq fa garaatam ne mu dem Égypte ci la doog a jot médaille bi tëdd ba guddi benn guddi soxna si feeñu ko ni ko suba laay woy ji àdduna teela la ñëw nga taxawuma te jigéen la setu yonent bi Nafisatul Misri am na maam na fi Malick am na fi Cheikh Al Hadji moo ko jàng histoire muy setu yonent bu sori mu tuddee ko doomam bu jigéen ñu ngi ko denc ba ko Busiri yi seetee ca Égypte fa ko suul keroog lu ko tiim ci bàmmeelam ne dëgg dëgg dëgg yonent bi kii mooy xalifaam waristi sifaatil Mustafa wa ulumuhu wa fadlukuma lawla nubuwatu waaxidu mu ne ko sa diggante yonent bi xam nga lu fi dox jibril ñëw ci yow moo ci dox danga amul jibril mu ñëw ci yonent bi la doon ñëw waaye bu dul jibril yaa moom kiif kiif yaa doon nu xam yaa doon jikkoom xalifa Aboubacar Sadiq du xalifaam Omar du xalifaam Ousmane du xalifaam Ali du xalifaam kii moo doon yonent ji nga kilifa jikko jële ñuy doon ak xam-xam ba da ñëw ci famille jabel mag ci famille bi di suñu taawu baay yow ngay suñu caatu baay yow ngay xalifa paa bi ti kii du doon xalifa bi lu koy waral kii mooy xalifa askan wi yow yaay xalifa xam-xam ndax li suñu baay nekkoon yaa ko man lu benn góorgóorlu rek góor ak jigéen a yem kenn leen bind mooy yàlla fu waay ne yàlla fekk la fa man du ma yuqamte ko du du ma seeti kenn ci yàlla rek ndax moo ñu bind moo ñuy sédd te ku ne bawu la nag ñun ñëpp bokk te kat kaay ma wax koo fi dem mu nga ak feebar bu ko jaaxal dañu dem seeti benn kilifa taalibe ma ma ci yóbbu ma jógee conférence ma nu Iran jaar fi ma ñëw kilifa gi di ma nuyu naan nii di làmbatu naan anak diw jox ma sama miyoo bi mu jox ko ko mu sol doog maa gis ma ne koo yaakaar yowmal xiyaam fii ci àdduna mu yaakaar ay weeri mi yëpp war ngaa tey sa ànd ak moom am déet nga yaakaar nit yowmal xiyaam mu naa ana samay weer ni nii ñu ne ko maam mu ngi mu ni nii naa jabel waay ndeysaan <laughs> gisuma la woon kon moom kii ko ramu bu dul woon kii du la gis na góorgóorlu rek lu nit ne ne ca dëgër réew mi sant wonee ngi fi kontaan naa trop bu gàmmu jotee mu yónni fi nag su tabaski jotee mu yónni fi xar su tamxarit jotee mu yónni fi nag di togg di indi ci daara ji ti maam Cheikh Ibra Fall nee na dabee ndab nag nee na boo bëggee jot gaay yàlla ya del joxe ñam ne yàlla tax rek walaay léppay baax yàlla na ko ko yàlla nangul su loon suma mbégére li ma ci wax duma ko ci wax su loon sama mbégére ki koy filmeel du ne ma ndax ma filmeel ma ne ko filmeel mm-hmm. man awma lu may nëbb aw ma lu may làq ndax ku ne la nga ne nëbboo ma ko làqoo ma ko maa ne fang ne fangar ku ne ci lu la nga ne est-ce que nëbb nga ko Iran est-ce que xam nga ci Iran est-ce que faale nga Iran kan lay limaali ci li yàlla lay limaali te yàlla bëgg na li gërëmal leen ma soxna Aida santal ma ko ne ko bég naa lool yàlla mi moom lépp yal na ko saxalal lépp ak ñamu ca àndal li ci des nag na ko bàyyi ci loxo yàlla mu ngi ci kanam waaw duma ma wax dara nag li ci des na ko bàyyi ci loxo yàlla te ñaan gudd fan nitam dana mën ne jëf sotti na lépp duma lenn nag ndax man sénégalais laa te wax naa ni ku ne na doon pompier ak tailleur sénégalais yëpp nañ doon pompier ak tailleur ku gis lu xotteeku ñawal ku gis luy tàkk fayal loolu mooy Sénégal fii ngeen ñëw dëkku Serigne Touba la ndax moog Cheikh Al Hadj a bokk lu ci yoonu Iran du lu ñaw rafetal rek man duma parparloo parce que ganaaru kenn ma nenu ku yàlla bind ku ma sa ganaar nen amul fii ngeen ma fekk mosuma tàll sama loxo mosuma ñaan mosuma leb jaay sama radis rek lu ma ci am muurloo ko sama ñaar loxo yi mosuma koo tàllal nit mosuma seeti ko am ma gis ci bureau nit daara yi sëñ Babacar ji rek laa toog waaye nag yàlla rek laay wéttale ko nag ndax mooy sama buur ganaaru kenn nenul Iran lu dul ganaaru yàlla ma kenn ku dul yàlla ndax moom moom aljana ko ma ci yaakaar ko ko moomul xanaa man dof kon këru jàmbur jabee la moom kër gi ma yaakaar pour nga fat ma ci kër gi te moomoo kër jabeel fat ma ba jabeel fekk ma fa waxuma weq daf may kuntaaba kon kërug yàlla yàllaa ko moom naa ko ci yaakaar góorgóorlu leen bu baax lépp dana baax lépp dana baax bu leen ko wor bu leen ko euh, def benn tappale ci dëgg rek bu leen xoolit ni boroom sér la jigéen la cër ajuwul ci jigéen ak góor ki bind jigéen bi góor muy séddale cër ti moo koy denc ci ka ko neex yaj'alu risalatu haythu yasha nee na man yàlla maa moom samay mbir ku ma neex laa koy def ci góor góorgóorlu leen góorgóorlu leen te dégg naa ci Serigne Cheikh nee na njaboot gu baax du xëlamtoo kilifaam mën-mënam bu dul man doo dem su dul man doo am lii njaboot gu baax du ko def bi ci des nit ku baax day uutal ndam ka mu àndal dama ko wax bugaan gi dani ne ko billaay sa ndama ma gënal sama ndam ndax wóolu gi ma wóolu man boo ma wóoloo soxlaatuma ndam yow laa bëgg nga am ndam ndax waaye Iran jee tax ndax wóolu gi ma wóoloo tax nit bu la bu ko wor bu la wóoloo utal ko ndam su bésum ndam jote ku ne di utal ka am ndam utalal ki nga am ndam te boo wéetee bu ko jëw ci safaan nit mooy sang nitam ndax du génn yaay génn ku ko xamul bëgg koo tilimal yow seetal ko ni ko xamoo ko kii mooy kii moo xam ni kii mooy kii li fi xew yépp ñu bon a ko def yàq nit ci lu dara nekkul ci moom te mënu koo waxal boppam te it mënoo wax ak moom intermédiaire yi ñooy muusiba yi nit bu doxee diggante nit ak nit day rafetal kii maag mooma ne ci daara ji surtout maam Demba War Sall mooy Abdou Sall bi ngeen dégg maamam buur la moo yor daara ji musuma nettali dara ci àdduna xalaatu ko kii saalix la ñoo nekk ñemewuma nettali dara man du ma dégg duma gis damaa tëx ba pare selmax ma boo ma saaga woon duma ko dégg te ba ma la saagaa nga yëg na góor góorlu rek ku fatt ñëpp na bàyyi ñu toxo ñu nag am déet ku fatt ñëpp bàyyi ñu toxo ñu itam ki bëgg a mel ni yow ti bëggoo mel ni moom waaye waaye boo ko mu saaga la ndax xolam sax xaw a waaye bu tëddee guddi nag xol ba dee tàngaat ndax ni nga mel ko métti waaw. soxna Aida bég naa lool ci lii nga defal xale yi jaaree ko ci man te yàgg na yàgg na de ca pa ca borom këram lool ba may ñëw kër Samba Law bi du foofu la ah muy Midinatu Salaam ba ma fay ñëw booba maa ngi jógee conférence sonn lool war a demaat conférence su maas bu Thiès fekk mu ni ma sama màggal gi baa da ñëw ma ne ko waaw papa dinaa ñëw am na jëwrinam sëñ Saaliw am du sëñ Saaliw ku nekkoon ak Cheikh Béthio sëñ Saaliw Samb moo ma paas ma Cheikh Béthio laaj ko ko mu ne waaye dama lay déglu kontaan naa de sama màggal gi nag bëgg naa nga ñëw ci ma ne ko waaw keroog ba ma demee daf ma ne lu ma xewleeti sa wàll ngi ci. moom la soxnaam doxal nii. te fekke wu ko lu ma xewleeti sëñ Saliou lu ma xewleeti na wàllu Iran dem. si nga keroog ba may ñëw guddee naa sonn naa man dama dul noppalu duma ma effacé wu du noppi du sakkanal yàlla du wax rek. parce que diini jikko ko waxul gars yi suuxal ko ci tànk yooyu la ñu ne du ma noppi mukk ti nag du ma tuub ndax juumuma kenn laa dul jéggalu dëgg rek dëgg keroog bi ma ne déréet wàcc seetaan leen ko ci internet mu ngi ci eh waaye Iran ñëw na waaye waaye Iran ndaw a ngi waaye bi ko seex bee koy bee cooy wax ak yàggul jeex na waaye jeexul soxna Ayda dundal na ko di ci kanamam la yéen ñëpp fa la leen fekk leen ko siis ñu tegal ma siis bañ paree mu ne acañ dem ma ànd mu moom ba ci biir néegam mu ne waay mu am na ñu ne maa Iran dañoo niroo waaye kontaan naa ci loolu di suñu niroo gi ma jógee fi dem Touba di tourné ji màggal sama oto yi dem ñu ne Cheikh Béthio Cheikh Béthio ma waaye lii ma moom lañ ko tegoon xam nga booba damaa ponkoloon nag léegi damaa maigrir dañ may jaawal mu ne mu ne dañ may jaawale ginnaaw waay bég naa ci de mais loola du tey démb la seetul ku ko ca mere du ma seet ku ma ci mere seetu ca dara ndax cofeelam kon bu soxna ay di ñëwee jaar fa borom këram jaaroon te fekkul ba muy wax ak man loolu di indi lii dama koy gërëm fu ko neex na fa yóbbu wax ji fu ko neex yaa koy filmer fu ko neex na ko fa teg kay saaga ñu tegal ko ci Sidi faalewul saaga ya te faalewul Iran kon bu may wax lu baax faalewu ma kenn man réew mi pompier laa fi doon ak tailleur rek lu xotteeku ko ma ñaw lu tàkk ma fay lu ma fayeegul rek maa ngi ci yoon wa daa fekk tàkk-tàkk ba yaatu rek may fay di ñëw rek lu ma ñawagul maa ngi ci yoon wa daa fekk xotte xotte bi yaatu rek damay ñaw rek kon góor-góorlu leen. jërëjëf Aida bég na sa borom kër sama xarit la loolu Sénégal yëpp ko seede moo na dem booba bu ngeen seetaanee net bi lu ma ci nit yekkul amul xaalis sa ko fa yóbbu lañ wax man xaalis tiitalu ma de fi may gis nii xaalis tiitalu ma de soxlawu ko sax. waaw soxla ma ko tiitalu ma soxlawu ma ko yàlla rek laa soxla ku yor sa alal. téel ku may boole nag demal boole maag yàlla kenn koo may booleel amul ndax waxuma ci turu kenn wuma ci kenn mawlaana tabaraka wa taala rek mooy sama kilifa ay da bég naa lool kontaan naa lool yow mi filmé tasal ba mu tasaaroo sama yoon nekku ci inter ko net ko facebook ko buk ko waaw tik fu la ci neex togal tik fu la ci neex defal waaw Iran Ndao a ngi nii maa la wax loolu waaw bisimilah. jëfati Serigne Saliou Iran ñu ngi lay nuyu bu baax dama amoon benn laaj rek. woon yor liggéey bii euh, saa su ne muy togg ay ñam di ko joxe moom soxna Aïda yu Thioune mu jëlaat liggéey boobu nga xamante ni moom la ko borom këram dénk saa su ne mu koy gën a doxal. ma en tant que borom xam-xam rek ma bëggoon nga sànni ci kàddu ban jàngat nga am si euh, boobu mbir. benn jàngat rek la. mooy mhm. sëñ sëñ bi ci fay. xam mhm. nga koy def dam daan def. Mhm. du mukk yéen bis bu ne Cheikh Béthio bees ci yéen. bu màggal ñëwee mu bees ci yéen. su tam xarit mu bees ci yéen. su tabaski jotee mu bees ci yéen. da koy beesal kay. kooku loolu yiw la. sa borom kër dëddu àdduna. la mu waxtaan naa ko ci biir waxtaan la mu doon def nga di ko def uutu ko ci ku mu amoon nga jokk ko bay def lu mu daawul def bëgg nga sa borom kër dund bëgg nga itam mu tàlli bëgg nga itam njaboot yi mu bàyyi ne ah ñun que ñun bëggoon tumuraanke waaye dootuñ tumuraanke ndax it tufee gën xiif te ñun ñuy tufe boole ñoom borom xam-xam ñuy waxtaan ak ñun ñu koy bëggee loolu doy na am na loo xam ni ku waay waay sëñ bi ku am doom ju la woo tuuti deewoo. looy def lu dul dëkk yéy sa góor a jaaxaar ceeb baa ngi dox ndox maa ngi dox lépp a ngi dox nga yéy sa góor a moo du ñëw ngeen mu wàcce saa ko ceeb yi kii doo ko ñaanal gudd fan ah gën ci àdduna yow miy laaj li gën ci àdduna ci àddi dee mm-hmm. mooy na bàyyi garab bu nit ñi di ca féexlu ku ca tëdd rek féexlu yiw wa yow mi dee yàq ko mhm, mhm. baa nga gas teen bu nit ñi di naan ku ca naan rek yaa moom yiw mhm. baa nga tabax hôpital nit ñi di fa faju ku fa faju yaa moom yiw wala nga bàyyi dëkkandoo wala njaboot bu lay saraxeel sarax bu mu joxe ak ndimbal lu mu joxe yaa moom yiw wa lii tey Cheikh Béthio ko doy doy na bu ko bu ko fi bàyyi mu ne ci nag kon mu ñaaw man de wuyu bu may dimbalee moo ma gën a wëlli wu dimbalee man Iran Ndao laa wax te yéen yéen noonu ngeen ma man na xam ma mënti dégg may dimbale jabel di dimbale jabel ba mu dara xew mu dem fara kooka léegi li ma bëggoon jabel nga wét sa néeg teg Iran teg ki nga fara seet ñaar ñi ku la ciy nga yëg ni li ma Iran defal kii musumaa defal dara te lépp Iran ma ko defal kon maa ñàkk ngor naa dellu ci Iran waaye waaye nit njëriñ la lay doyal boppam ah ki lay defal lu la kenn defalul waaye teg ko foo kenn moo tax yaa wax ne bu Cheikh Béthio dekki woon soxna Aïda du changer dara du changer dara ndax laf la fi nekkoon rek ca la ne mhm. Mhm. ba yokk ci mhm. bu ñëpp defee noonu mu baax xam nga lii mu def tey bu ma ko defoon tey yóbbu Touba keneen def ko yóbbu Ndiassane keneen def ko yóbbu Canam ci tariix yi léegi inna man moom yi nu nu ixwatuna ñu ñëpp ñu ay mbokk lu tax ñu nekk mbokk faas leew mooy ñam yu indi fi ma yóbbu ko fee keneen yóbbu ko feneen yéwénal googoo ñuy bokkale waaye buñ jëlee sër bi di ko xotti ñuy juboo man koy mer meral sa mer man du ma wàlli bañe du ma par parloo su ma demee bay far ma far ak sama ndey ak sama baay du ma faral bàyyi kenn du ma faral ndeyu kenn ndax buñ dee du ma leen doon maa ngi doon rek dama yàlla tànn rek sant amul solo góor góorlu sant amul solo taxawaay am solo leen rek taxaw leen rek mhm. mhm. taxawaay rek am solo taxaw leen rek yaa jëf bég na jëf démb rek la fi la fi yónni ndeysaan gàmm mu yónni fi mhm, mhm. gars yi fii la ñu toog mhm. tabaski jabe la ñëw ndeysaan tey yéen a ñëw lu xew mu yónni ci Cheikh Béthio manoon sëñ Saliou lu ma xewleeti Iran am na ca cër ah, waaw waaw ma fa jógee laa defoon nañ ne duma ñëw xaajatu bilaay bi ci mhm, mhm. kon jàmm jàmbaar ngeen mhm. soxna si jàmbaar la dalal xelam bu baax bu tëddee na nelaw bu mu yem ci nelaw na ca boole xaram mooy xam ne benn buur rekk fi ni mooy ki ko def jigéen benn buur rekk fi ni mooy ki ko jox xéewalam benn buur rekk fi ni mooy ki ko di ko jox ñu ko war di ko jàppale bu dul kooku kenn newu benn ko ne loo gën ne danga koy téye boo dee sa doom jëlu def baax na mu def baax na daara yi mu koy def uutu naa ci yëpp mhm. santal ñëpp gën a mën ñëpp ndax nit bu la defalee da nga koy sant ndeysaan waaye eh, nit defal la nga di ko làq dugal leen ko pour filmer mhm. luy loolu bari na ci yow bu weer dee ñu fay la sareet ki lay fay du jullit mhm. xaalis bi ñu koy defee du ñuy julli jullit si lan nga am xarit tubaab doo ko nëbb te bu sawee du yusu nga am sa mbokk jullit di ko nëbb man de ku may seet ci guddi jabeel mu su ñëw guddi ba ca rek mhm. gaari oto bi di yuuxul ana Ira man su ma nekkee yow du ma la seet si guddi du ma la oo téléphone bëccëg laay ñëw boole oote mhm. ba ñépp xam ni kii mooy sama waay mhm. waaye di dundee ci nit ñi ba bés nga saago dañu ñi dañ naan waa xanaa kii du moo ko doon tagg ca promenade bi moo koy saaga nii fakkii ko mu te yàlla defu na ñu nga dëkkal Thiès dong nga la xam mm-hmm. parce que siiwulu mm-hmm. te siiw nga bon mm-hmm. man ni yàlla bu ma siiwee lu bon yàlla bu ma siiwee lu ay dana góorgóorlu ngeen góorgóorlu yal na yàlla barkeel lépp yal na yàlla suturaal nii ngeen def ñi la ay xale ngeen ay jeune ngeen seen karaw yi ñun kukk xale mën a doxal jamono mag mënu ko mag der kurus la man waaye yéen yéenay tëb yéenay wadd yéenay dal tànt yéenay def lu ne xale mooy yor mbir yal na leen yàlla fay yal ko bég naa lool soxna si bég naa lool kontaan naa lool xamal ni Iran bég na lool dalalal sa xel lool di nga gën a góorgóorlu lool léppay baax maa la ko wax léppay baax incha allahu taala yan yàlla boole ñu jàmm boole ñu sutura kontaan naa ci yéen ay ci allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm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 subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil